ni Abdoulaye Gueye lay wuyoo kenn ca moroomam yi moo ko daal rekk rek poñe daal di koy jam ba mu daal di faatu nag mu mel ni ñoom ñaar sax jot nañu seq lu bare ndax ñoo bokkoon kër ga ñu doon fanaan ginnaaw rek mbir mu doy bi nga xam ni seq nañu ko muy xeex bu amoon seen diggante buñu sukkandikoo ci délégué de quartier ba mu ni ñoom ndaw ñeen ñoom ñooñu nag ci tabax bi nga xam ni yeggul foofe lañu ñu nekk te loole bokk na ci li indi ñàkkum kaaraange gi di ko yokk ca gox ba moo waral fi ñu nekk ni ñi ngi artu kon di woo itam autorité yi ndax ñu daal di ciy wax bu ko defee ñu gën a rek ñoŋal lu jëm ci kaaraange gi ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi di waa RFM